asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram muy weeru tam xarit di weer wi njëkk ci atum junni ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent fukki fan juróom-ñeent bokkul ci lim yu fàtti lim bu rafet la kon tey ci ajjuma ji rafet na lii ci gën a taamu mooy ku ca daloo ajjuma ju nekk sopp nañu ku ca bëri julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak ku ca jàng suuratu kaaf ñaanu bés bi yow yàlla yàlla na nga ma na la sama àdduna ji nga xam ne ci lay dund allahuma aslix lii dunyaaya allati fiha maashi allahuma aslix lii dunyaaya allati fiha maashi xaddisu bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na sunu boroom bind na ay malaaka yoo xam ne dañuy dox ci kaw suuf si di ma jottalil nuyoo sama xeet xaddis bi an nisaa yi nettal na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa inna lillahi malaayikatan sayaaxiina fi ardi yuballighuuni min ummati salaam rawaahu nisaa'i waxtu julli suba waxtu na tàbbi 5h36 juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom benn tisba 13h40 benn waxtu wu tegal ñeent fukki simili fukki simili timis juróom-ñaari waxtu yi tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent gee vingt cinquante juróom-ñetti waxtu yi tegal juróom fukki simili loolu mooy waxtu julli si Touba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre ju ne benn simili soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètre ne yokkal benn simili jant bi dana fenk 6 heures 51 juróom benn waxtu yi tegal juróom fukk simili ak benn diso 19 et 35 juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin